asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 25 novembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglekaay bi di suñu làmb nag moom tey xëtam mu njëkk comme fa xëy fësal mooy ki nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé sëlu bu ndaw ba dëkk ca Pikine Ama nag yëglekaay bi dafa xëy ñëw ci fa nga xam ne nii mooy fa nga xam ne moo di parcelle ak la mu fa def ak jaar-jaar yi nga xam ne daal wane na ko fa mu mel ni kii nag bu bëggee dégg-dégg daal comme fa njëkk a séqal bés mooy bàyyi pël bu roog dal di koy daan ñu ne déet ne waay tournoi TNT ba mu daje fa ak zos daanati ko ñu foog ne ca lay yem mu continuer dajeek Papa Sow dal di koy daan ñu ne déet ne waay nekk nii nag jublu nag mooy digganteem ak roi des arènes ba mel ni ki nag ko maanaam daal roi ba daal la bëgg a jëli nag fi fi nga xam ne nii fi lañ toll tey te ka ko yor kenn ko dal ka nga xam ne moom moo di Modou moo tax yëglikaay bi di def la nga xam moom la làmb xëy a bëreel nag di Modou Lo conférence de presse am bi ñu doon nañu xam ne daal ajjuma jiinu jëm nag ca lañu ñu koy def wala boog ca la koy def fa nga xam ne moom moo di place du souvenir kon nag na leer nañ record wax nañu ko sunu lamb wax nañ ko ca la nga xam ne a nii moom moo di daal la nga xam ne moom moo di xaalisu sponsoring bi léegi daal dafa mel ni nag ginnaaw léegi nag moom la nar mooy di ko werse fa nga xam ne nii moom moo di ca CNG ba ngir coow ya kon ya ca daan am daal dal di dak ña nga xam ne ñoom ñooy waa CNG ba nag ka ko jiite di nga nga xam ne moom mooy Bira Sène bu ñu ca dëkkam ba nga xam ne nag moo di ca Kaolack nag na keneen koo xam ne ni daal wane na boppam ne moom daal candidat la ngir jël place su muy Ajjuma Diouf moom daal présenté wu ngir fas nag jël place booba keneen koo xam ne ni moom xëy na tey di wax ay mettitam ak naqar woo xam ni daal dund na ko fan yi muy Mohamed Ali muy Waalo la ko metti nag mooy moo di Balla Gaye Ndour wuy ji na ko boromam te nag na daal metti na ci man lool waaye nag jàpp na ne daal la ko ci gën a metti maanaam daal ne na dem na te tàgguwuma ne na nag ba mu amee wala boog ñeenti fan la ñu mujj déggante yàlla def mu wuy ji boromam ginnaaw loola moom nag mu ngay ñëw di nettali ay jaaram ay jaar-jaaram jàpp na ko baax la woon nit la woon koo xam ne daal ku daan jàppale ay nit la diinaa carrière am ne na ànd nañ lu mat ñeen fukki at ak nangam ne na len loon na ma naqari mosuma koo def wala mu wax ma ko ne na sax sama combat ak am na ci combat boo xam ne ba ma koy préparé kere yëkkati na jox ma ko ngir ma préparé wu ne na combat booba dama caa am ndam aali daal tey xëy na tey di seeral ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye Ndour ma nga xam ne ni mu wuy ji boromam ak ka nga xam ne moo di Alioune Seye numéro un mu ne ñoom daal dee dong ma leen mën a tàqale waaye lu baax lu ne séq nañ ko ci kaw àddina maanaam daal ñëw na tey wax lu yaatoo yaatu moom Mouhamed Ali te ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye Ndour yëg likaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw andil ñu wax ju mel ni ki noonu mel ni ki ba tey bu nu fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record nag fa mu xëy ñëw mooy mooy ñetti mbër yoo xam ne daal seenu dëkkante wala seen waxante metti na trop waaye combat ba maanaam combat seen combat la ko teree taxaw daal yëglikaay bi ñëw na na ne am na ay yu bëri jéem nañ ci muy diggante Garga Mbossé ki nga xam ne moo di Sa xam ne moo di Yékini Senior ñu ñetti yoo xam ne daal seen coow bëri woon na fan yi lool waaye seen combat daal maanaam fexe ba tëgg ko moom mooy jafe-jafe bi yëglikaay bi di record a xëy ñëw wax nu ko ne na waa Vox Arena jéemoon nañ ca ak ñeneen ne jéemoon nañ ca waaye daa mel mbiree daal daa mujj essuyer jóge maanaam yàqu réussiruñ la nga xam ne ni moom lañ bëggoon maanaam ñett ñooñ ñu taxawal ci ñaar ci ñoom seenu combat yëglikaay bi di record xëy ñëw wax nu ko beneen combat boo xam ne daal yëglikaay bi di record xamal nañu day heure ba sone na de ngir ñu war a mën a bëre mooy diggante góor a soq bu parcelle ak Moussa Ndoye bu yaraax yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ñoo ñooñ nga xam ne daal fi mu nekk ni moom combat bi yëglikaay bi jàpp na ne war nañoo mën a taxaw bëre nag moo tax sunu làmb ñëw na ci seen ay victoire bu dee góor a soq nga xam ne ni moom moo di góor a moom onze victoire am na ko Moussa Ndoye am na douze victoire Moussa Ndoye nag douze victoire am yoola boole na ko ak quatre défaites Gora Sock onze victoire am yoola mu boole ko ak trois défaites record a xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci yéen ah. tey nag ni ngeen ko xamee ñu ngi ci mercredi ah ñu ngi tey la mercredi ñu nuyu bépp internet boo xam ne daal yaa ngi ñuy à travers le monde ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay ñaanal jàmm tombé ak nag le 25 novembre waaw di leen bëggee bu baax a baax rek di leen bëggee di leen wax ne amuñu seen fay waaw yéen lu ñu nekk ngeen nekk ci xam nga te loolu defe naa ne ah, ku koy def rek wolof ne na kuy wax kuy déglooy mbokkam waaw kuy feeñit ku ko seetaan la bëgg kon yéen ñi ñu seetaan ci kenn internet bi di jël seen ay connexion na ma ko daan wax rek maa leen di ñaanal saa su ngeen xëyee daal yàlla di leen gën a dimbali ci seen ay poos ak seen i wér ngeen wan di ñu topp ñu mën di leen jox li xam ne moom la ñu am ay xibaar ci làmb ji kon fu ci waay nekk rek muy Europe muy Amérique muy Afrique muy muy muy Asie ba Océanie nekk fu mu ci mën a doon rek parce que fu ne la ñuy seetaane di ñu fa dégloo kon yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen encore une fois sunu làmb tey xëtamu njëkk Ama moo xam ne daal ah biir parcelle daal daa mel ni fu mu min la ndax ñetti dugg yam fa jota dugg yëpp bu ci ne am na ca combat ndax ku ne yaa ngi fàttaliku digganteem ak Baye Pël kere defe naa stade Iba Mar Diop balaa 16h jot fees na dell dell combat bu amoon tension waaw defe naa ne su ma jumul bés boobu est-ce que du ci la njëkk génnee jaan ja nit ñëpp waaru kera mu nekkoon làmb joo xam ne nii ah Iba Mar feesoon na xatoon na lool yàlla def ñu jongante ama am ndam muy bu njëkk biir parcelle ñoo ne déet ne waaye tournoi TNT ba mu dugg ca fekk fa Zos moo xam ne moo ko jiitu ci làmb ama bëre ak moom daan ko ñu ne déet ne waaye diggante ak Papa Sow ku ne gis na enjeu ba mu awoon enjeu ba ca nekkoon ak combat ba fa mu yeggoon ci wàllum maanaam daal ku nekk bëgg ci ndam waaye gis nga bañ bëree itam bëriwuñ lu yàgg ama am fa ndam muy mbër moo xam ne kon daal daa mel ni biir parcelle ah yàgg na faa sampum dëndëm di fa lëmbe waaye nag daa mel ni fa la mujj a dugge fa la mujj a am ndam ndax ba mu jógee ci papa ba tey bëriwaatul tey nag li jar a wax mooy kaay bi da caay ñëw mooy diggante mag Modou Lo nga xam ne nag mooy le roi des arènes dëkk ca parcelle ama jël avance am mel ni kon ama fasagul yéene génn la mu fa daan def da koy continuer wala Modou Lo da koy freiner moom la ci kanam rawuli dañuy ñaan yàlla combat bi yegg seeg jàmm waaye xam daal ah quatrième adversaire am ci la jëm koo xam ne tamit laale woon nañ ñoom ñaar ci mbappat Modou am ci kawam ndam loolu am na archive yaa ngi fi photo yaa ngi fi waaye defe naa ne ah làmbi mbapat ak làmbi dóor ba tey am na différence ñoom ñaar tamit tey fa ñu tolloon bu ñuy bëree mbapat ku ci ne ñoom ñaar dépassé nga ko ci wàllu cadre sport maanaam professionnellement ak itam ci sa wàllu màggaay ci sport ak sa wàllum lépp lu mu waroon daal ci li la entouré dépassé nga niveau boobu kon tey ñu ne ci niveau bu kawe kawe ci làmb parce que ku dem bay bëree couronne roi ñëpp kon ja ka roi ba xam naa daal seen combat ah nañ ñaan yàlla fekk ko te te tal ko rek waaye komba bu nar a metti lay doon muy Modou Lo Ama Baldé parce que enjeu bi ci nekk dafa bari lool lool lool lool te Ama fu nekk wax na fa ne dafa bëgg bëri ak Modou Lo ci lu ñu nit ñi dégg ndax yegg na ba ci ne bu ma maa a doon ba yor bekke sax su ma dajeek moom ci mbedd mi naa ko sànni bëri ak moom kon defe naa kooku bëgg na bëri ak moom mel ni kon ñoom ñaar itam ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttali tëjal buntu bi leen boole moo tax xam naa Luc Nicolaï ak waa Luc Nicolaï xam loolu fexe ba taxawal combat bi kon yàlla nañ ko réussir waaw la ca des mooy Modou moom nga xam ne nag moom war a bëri ak Ama conférence de presse am ñu ngi ko doon annoncé fan yi yëpp kon nañ jàpp de presse lu leer nàññee la waaye daal combat boobu yàlla nañ ci yegg ak jàmm mu mel ni manager yi tamit ci njiital Basiru Baabu seen bi dalal na leen démb xam naa waxtaan ngir lu gën a yokk làmb ngir xool doxalin bi ah, ci li ci ci ci sunu kanam loolu muy am am solo ndax mën naa say defe naa ne ñoom itam ñu jar di remercier la ñu jari waxtaana la ndax defe naa ne mbër mu ne ñoo koy indi ci làmba encadré ko teg ko ci aw yoon utal ko ay combat ba ñu mën koo gis kon defe naa kooku itam dama naan manager entraîneur moom ñu ñu war a a jox cër lañ ci làmb waaw manager yi entraîneur yi war nañ leen gën a jox seen gëdd ndax itam ba dara dul dara ñooy nekk xale bi di ko former am na seen xaalis jox ko mbër waaw di ko dimbali ba mbër mi mën a dégg daale kon defe naa ñooñu war nañ jar nañu waxtaanal reliquat sponsor yi gis nañ foofu tamit que ni léegi nag désormais dañ koy xel di yóbbu fa nga xam ne mooy ca CNC ba ko defee mu indi saafara dana gën parce itam daan nañ fi gis coow ci war ko ba sax des fois nga ci daan gis yoo xam na sax dem ba tribunal ba te yëpp du ko jar nañ def nag ba régler da mbër yi fayeeku nga xam ne benn promoteur dootul yoral mbëri wàllum kase kon itam defe naa ne lépp lu wërul côté boobu waras na ca mën a xool nag seen seenu muy collaborer ak promoteurs yi ak mbër yi ak sponsor yooyu nga xam ne dinañ mën a sécuriser la ñuy def ku ci ne la ngay joxe nekk ak la ngay jël ak la ngay laaj ak la war ci yow ñu sécuriser ko ba nga xam ne buñ ci jógee kenn du ci gaañ defe naa loolu itam ak yokkute lay doon ba tey bu nu continuer fa nga xam ne ni moom moo ji ci journal bi ka nga xam ne tamit moom mooy Bira Sène Ajuma ku ne xam na ne mu nga Kaolack di fa promoteur yaa ngi dégg yaakaar naa nekkoon ancien mbër euh, moom defe naa ne fi mu nekk nii banque ba Bira Sène yoroon ca Kaolack CRC ba mu jiite woon moom la jàpp ne daal moom candidat pour war ko mën a jiite waaye defe naa loolu defe naa loolu tamit am na si droit te itam def na ci làmb lu war a mën a tax mu laaj banque boobu mérito ga wala ñàkk mérito ga nag loola duñ ci mën a wax waaye xam naa daal war na ci làmb lu war a tax tey mu mën a jiite làmb bu fekkente ne ay capacité may na ko ko ak i tamit ña ko war a jox wóolu ko buru jox ko ndax itam daa loo ne boo bëggee ñu fal la tamit daa am ñu lay fal waaye loo ci mën a dégg daal ñoom ñoom ñoo dëkk foofa ca kaw la yaakaar naa daal dinañ xool ki gën ci ka nga xam ne mooy CRC ba ñu teg ko fa loolu lañ leen di ñaanal ba tey bu ñu continuer Mohamed Ali tey waxee na ak xol wax na lu daw yaram ci diggante ak Balla Gaye Ndour ñu ñaanal suñu papa jooj Balla Gaye Ndour yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana ak bépp jullit bu tëdd ci suuf waaye daal wax na seen diggante ci ñeent fukki at yu tegal yoo xam ne ànd nañ ko te dara lu euh, maanaam loo xam ne lu ñagas la mosul dox seen diggante jàmm lañ ma sa seeq mu ne na ku nekkoon nekkoon na koo xam ne daal ku daan dimbileey doomu aadama la rawatina sport bi ñu seqoon na ci moral ak lu mu mën a doon financièrement sax ñëw na ci ba ne bi muy bëree ak moom Mohamed Ali bi muy bëree ak tafaa Gueye seen combat ne na moo Balla Gaye yëkkati na fanweeri junni jox ko ko cinquante mille dimbalee ko ko kon defe naa loolu tamit ku la yéenewul du ko def te jàpp na ne muy moom Ali Balla Gaye ak Alioune Seye numéro 1 dee dong mu leen mën a tàqale waaye mosuñoo tàqali ko ci àddina ah yàlla nag mooy dëgg noonu ay mbiram waaw yàlla na yàlla def rek bu ñuy dund comme nan nga ko waxee muy rafet rek ba bu fi jógee net bi gën a rafet ndax defe naa ne tey bu demee woon neneen net li bu du rafeti ni nga ko waxee père Ali yow tam ñu lay ñaanal yàlla nga gudd fan yàgg fi lool lépp lu ñu fi taxawe woon ah nga taxawee ko fi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax que bëri nga ba bàyyi bëri dégguñu ci yow coow yaa ngi encadré ay mbër ba tey kenn déggu ci yow coow te naa loolu dal moo koy maye ak itam nekk koo xam ne royukaay nga kon ñu lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram rek di ko ñaanal bépp doomu aadama Mouhamed Ali di ku yaru vraiment di suñu papa di suñu lépp jot nañu seetaan tuuti ay kombaam muy ku baax a baax macha allah di ñaanal papa Balla Gaye tamit yàlla yërëm ko rek xare ko aljana moom bépp julli comme ni ñu ko waxee woon bu ñu demee record kañ fay fekkaat mooy ba tey conférence de presse bu Modou Lo ñu ngi ñu koy annoncé waat rek kon àjjuma la place du souvenir waaye record ñëw na ci combat boo xam ne benn combat ñetti mbër laa ko mën a tudde muy a muy Garga Mbossé muy Yékini Junior muy Sa Thiès combat boo xam ne wax dëgg yàlla combinaison yi bëri na amateurs yi koo ci laaj boo leen nee Garga Sa Thiès ñu ne la combat la boo ne Yékini Junior Sa Thiès wala Yékini Junior Garga ñu ne combat la mais boobu ba tey combat bi pour mu taxaw mooy problème bi am na ñu ko fi jot a dox ay promoteur dégg nañ fi waa Leewtoo ci Garga ak Sa Thiès ba ñu annoncé woon na taxaw ne mais par la suite gisuñu ci maanaam mu mujj ñu am siitu combat combat waaw mu mel ni kon ba tey loola leeragul wala taxawagul foofa ñun déet ne waaye gis nañ tamit waa Vox Arena doxoon nañ ci combat yu mel noonu waaye ba tey mooy loolu kon defe naa ah, ne ñoom ñooñ koo ci booleeg morom ma rek combat ba dana war mën a neex Gora Sock ak ka nga xam ne moom mooy Moussa itam seenum combat yëglikaay bi di record jàpp na ne ah est ce mën a ñàkk la waaw defe naa war nañu mën a bëre nag war nañu mën a bëri ndax góor a soog ku ne xam na ne mu nga parcelle combat bu mujj da koo ñàkk digganteem ak Tyson 2 Moussa Ndoye combat bu mujj da koo ñàkk digganteem ak nga xam ne ni moom moo di Garga Mbossé defe naa na a boole ñu war a mën a bëree parce que itam faaw mbëri nangoo bëree seen biir te boo xoolee seen palmarès yi 12 victoires 11 victoires 3 défaites ci Moussa 4 Sock kon defe naa ñooñu war nañoo mën a bëree muy combat boo xam ne bu waree taxaw bu mënee taxaw lu jaadoo jaadu la daal waaw di leen tey loolu moo fi ñëwoon ci journaux yi record sunu làmb xam nga di ñaanal ñëpp jàmm comme ni mu ko ubbe woon rek di sàkku tamit ñëpp ñaanal ñu jàmm di nuyu képp ku ñuy suivre rek ak foo mën a nekk si àddina bi rek waaw di nuyu bépp doomu aadama mais di nuyu koo xam ne ni suma soppe la di sama jigéen ñu koy wax madame Ba Aminata jaata madam Ba waa nekk sami fii ci te kër góor gi maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu borom këram mais di nuyu tamit bépp internet boo xam ne yaa ngi ñu suivre ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Khadiros ñoom Awa Diop ah Asi Diagne ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg di nuyu ñoom Ndongo Fall Serigne Ndiour maa ngi koy bëggee suma rak suma frère moom tam maa ngi koy bëgg suma xarit jàmm waaw di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñu suivre mais tamit di nuyu suma maire commune encore du ma ko mën di fàtte ci dara muy le maire maître Pape Sène président commune de Sénégal des droits de l'homme suma xarit suma maire suma kilifa maa ngi koy bëgg bu baax a baax di nuyu Saliou Khoule borom Sik FM mais di nuyu Lamine Lit TV sama rak suma xarit moom tamit ah di nuyu képp ku ñu suivre daal yaa ñu ngi lay béggee ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax yàgg ma di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di ñaan Sénégal leen fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi